yaakaar machine bi moom ci dara xajul ci kenn Kaolack Kaolack Kaolack l'a démontré ce soir bi ñu duggee ci région bi ba tey Nioro ba fii nii la j'ai pas de doute dimanche prochain vas waxtu tout. le de ta ta du jubilé parce que le travail de consolidation le travail d'amélioration le travail d'accélération va être entrepris immédiatement maa ngi koy wax ci le premier défi du bassin arachidier mooy fii suuf si dafa sonn ba pare am xorom fii ci biir Saloum C'est un grand projet, un grand projet de restauration des sols ici dans le salon. Saloum Kaolack dans l'histoire du Sénégal nous allons faire un rôle gën ko yokk gën ko amplifier parce que li mën a dundal Sénégal mën na jógee fii ci biir Saloum moo tax ma tàmbalee projet de restauration des sols ici au Saloum bu boobaa combat. Agriculture, élevage, d'une grande manière développer fii entreprise d'une dinañ fi ñëw parce que fii fi la ñuy transformer li ñuy mais loolu yëpp pour moi, am yéen yéen a ci liggéey. Lolota. je veux être le président de l'emploi des jeunes la jeunesse ce n'est pas l'avenir la jeunesse c'est d'abord le présent pour nous Kounek, le la

du <laughs> ay digaate xam nga xam nga tey damay wax ci ay kanamu seede xam ngeen ni Kaolack soreetul ndax du yàgg ci weer yii di ñëw autoroute ngay ci nekk jóge Dakar ba fii ci ay weer yu néew gis liggéey bi ñu réhabiliter le port de Kaolack ñu réhabiliter de Kaolack de fer kon bu ma leen ne Sénégal dañuy jëm ci naataange à partir de 2030 war ngeen ma gëm avoir un problème d'assainissement, parce que si vous un programme spécial d'assainissement de Kaula sera mis en œuvre dès 2025 tali yi réparé ko sunu jarbaat ak sunuy doom yi yor Jakarta dinañu mën a dawal en toute sécurité parce que ku wax Kaolack wax deux roues loolu dafa ànd ak histoire Kaolack yàgg na troisième défi bu Kaolack mooy ndox mu neex ndox mu neex fii ci kaw nag dama bëgg ngeen jàpp juróomi at yii di ñëw waxuma président de la République du Sénégal déedéet dama ne je vais être le président des Sénégalais ku nekk ma fekkal ci sa quartier fekk la ci sa région fekk la ci sa kër xam nooy dundee fexe ba mu amélioré wu ci lu mu gën a gaawee.